jàngaleen li bantu ko ci rajo bokko xaat yee anam gën a baax waaju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 nanu defaat su ma wañaatee ba ñett benn ñaar ñett e, e waaw leen góor waaw kumba xale yi amuleen moroom nii la léegi nag nanu jàll ci benn yëngute samay jarbaat léegi nag ngir waajal liggéey bi yëkkati leen seen baaraamu joxoñu kaay mu tolloog seen xar kanam siirkat yi ñu déglu ñoom it nañu yëkkati seen baaraam may leen ma xool ndax yëkkati ngeen seen baaraam joxoñu kaay ci kaw yaakaar naa ne seen xel yi ñuy déglu ñoom it yëkkati nañu seen baaraam saa su ma tuddee araf ngeen laal ko aywa dë gë më o pë xë rë nu defaat dë gë më o pë xë rë amuleen moroom xale yi gis naa ni te bu baax seen baaraam ci araf yi yaakaar naa ni seen xale itam def nañu ko waaw kay samay jarbaat ak suñu xarit yi ñu déglu ñoom ñi laan ca Fatick nogoy ca njaareem Fatmata ca Matam awa ca Kaffrine Omar ca Ndar Baraama ca Louga ak seen yeneen moroom yi léegi nag dañuy tàggatu ci ràññee ndektu bu jëkk ci ab baat ci lu gaaw ngir tàmbali dañuy liggéey ak ñaari baat nijaay asan naka lañuy ràññee ndëktu yi jëkk ci ay baat ci lu gaaw dañuy liggéey ak baat yi ma leen di jox na ngeen teewlu bu baax ngir mën a ràññee araf yi jëkk ci baat bu nekk badu ndax mën nga maa wax naka lañuy def ngir ràññee ndëktu bi jëkk ci ab baat nijaay damay déglu bu baax baat bi suñu koy tudd ma baamtu ko ci sama xel te teewlu wan araf moo tàmbali baat bi jërëjëf sama jarbaat yaakaar naa ne ñépp jekk nañu léegi waaw nijaay jekk nañu baat bi jëkk mooy doole baamtu leen ko doole amuleen leen moroom xale yi yéen suñu xarit yi waxleen leen lu ndektu bi jëkk ci baatu doole suñu xarit yi ñu déglu ci kër yi wax leen seen tontu samay jarbaat lan mooy seen tontu. nijaay ci baatu doole. deux mooy ndektu bi ci jëkk. waaw kay xale yi. ràññee ngeen bu baax araf bi jëkk ci baatu doole. sunu ñaareelu baat mooy tette baamtu leen ko tette amu leen moroom xale yi yéen suñu xarit yi wax leen nu ndektu bi jëkk ci baatu tette suñuy xar yi ñuy déglu ci kër yi wax leen nu seen tontu samay jarbaat lan mooy seen tontu nijaay te mooy ndektu bi jëkk ci baatu tette waaw kay xale yi ràññee ngeen bu baax araf bi jëkk ci baatu tette léegi nag nanu bàyyi suñu xar yi ñuy déglu ñu laal araf fu nekk te tudd ko xale yi yéen daal amuleen moroom léegi nag dañuy tàggatu ci naka lañuy arafale maanaam benn benn le araf yi nekk ci ab baat ci lu gaaw ngir tàmbali dañuy liggéey ak ñaari baati wolof nijaay naka lañuy def suñu bëggee benn bennal araf yi nekk ci ab baat ci lu gaaw dañuy liggéey ak baat yi may tudd dangeen leen di déglu bu baax te teelu araf wu ci nekk badu ndax mën nga nu wax naka lañuy arafale ab baat nijaay damay déglu baat bu baax jéema a jëmal araf yi ci baat bi ci sama xel dala ko ci ndoortali ba ci mujjantal gi ma daldi wax araf wu nekk benn benn ci misaal su dee baat bi nafi la dama naan nafi ñu ngi koy binde na a f ak i jërëjëf sama jarbaat yaakaar naa ne ñépp jekk nañu ngir door liggéey bi waaw nijaay jekk nañu sunu baat bu jëkk mooy dañu baamtu leen ko dañu jërë ngeen jëf xale yi sunu xarit yi ànd ak nun ndax man ngeen noo wax araf yi ñu tëgge baatu dañu déglu leen bu baax baat bi dañu suñuy xar yi dañuy déglu ci kër yi as su ca ndula Pascal ca jurub mayram ca sincu garba ndumbe ca maabo suleymaan ca caameen ñoxor ca mbadaxun ak seen yeneen moroom yi joxe leen seen tontu samay jarbaat joxe leen seen tontu nijaay dañu ñu ngi ko bindee dë ña u tigi sama jalbaat noonu la arafal ngeen bu baax baatu dañu sunu ñaareelu baat mooy wone baamtu leen ko wone jërë ngeen jëf xale yi sunu xarit yi ànd ak nun ndax mën ngeen noo wax araf yi nu tëgge baatu wone déglu leen baat bi bu baax wone wone suñu xarit yi ñu déglu ci kër yi joxe leen seen tontu samay jarbaat joxe leen seen tontu nijaay wone ñu ngi koy bindee wa o na e waaw leen góor waaw kumba arafal ngeen bu baax baatu wone dana ci jàng naka lañu boole ñaari ndëgtu ngir tabax ay dogi baat mari wax nu naka lañuy boole ay ndëgtu ngir tabax ay dogi baat nijaay su ma dee tabax dogu baat damay toftale ndëgtu yi ci sama xel ba noppi soog a tudd dogu baat bi waaw kumba mari léegi nag yéen ak seen xel yi ñu déglu da ngeen di baamtu ndëgtu yi may tudd yéen ñépp baamtu leen a de a badu sama jarbaat léegi fàttali seen xarit yi naka la ñuy boolee de a ngir tabax ab dogu baat nijaay su ma bëggee boole ay ndégtu ngir tabax benn dogu baat damay toftale ñaari ndégtu yi de ak a ci sama xel su ma noppee ma tudd dogu baat bi ma am. gis ngeen boole ay ndégtu ngir tabax dogu baat jafewul léegi nag nanu bàyyi sunu xel yi ñuy déglu ñu def ne nun ak ndégtu yi ma leen di jox sunuy xarit yi baamtu leen de mari ban dogu baat lañu mën a am ci ndégtu yi nijaay dogu baat biñ ci tëgg mooy dë tigi sama jarbaat wax nga dëgg léegi nag sunu xarit yi déglu rajo bi ñoom ñooy wax ban dogu baat lañu mën a am ci dë o sunuy xarit yi ñu féete dàgg jaxate jànke suuf nayoobe ngaabu paal seew ak yeneen gox yi ak gox goxaan yi ban dogu baat ngeen tëgg samay jarbaat lan ngeen di tontu nijaay dogu baat bi mooy do tigi noonu la do mooy dogu baat bi ñu ci tëgg jërë ngeen jëf léegi nag sunuy xarit ban dogu baat lañu mën a am ci fa su suñu xarit yi ban dogu baat ngeen tëgg ak ndektu yi ma leen jox samay jarbaat lan ngeen di tontu nijaay dogu baat bi mooy fuu tigi noonu la fuu mooy dogu baat bi ñu ci tëgg jërë ngeen jëf yéen ñépp tëgg ngeen bu baax dogi baat yi Marie ndax mën nga ñoo fàttali baat bi ñu jàngoon ci sunu émission bi weesu seen xale yi ñuy déglu ñoom war nañu jéem. nijaay baatu selebe yoon lanu jàngoon. waaw Kumba mari Badu jéemal defar kàddu gam baatu selebe yoon seen xale yi ñuy déglu ñoom it war nañoo jéemal. bitigu Baay Moussa mu ngi nekk ca wetu selebe yoon bu mag ba. amu leen moroom jàmbaar ngeen. ci sunu leçon tey dinañu jàng it baat bu bees baat bi ñuy jàng tey mooy kañu sama jarbaat baamtu leen ko kañu waaw leen góor waaw leen kumba suñu xel yi ñu déglu Elen ca Fayil Moustapha ca Ndànd Sidiki ca Ngodiba Mayakoor ca Fara Bugum Sooda ca Gàndong Ali ca Gaajoobe ak seen xarit yi ñoom nañu baamtu baat bi waaw leen kumba waaw leen góor kañu mooy tagg sa bopp samay jarbaat wax leen lan la kañu di tekki nijaay kañu mooy tagg sa bopp suñuy xarit yi déglu yéen it wax leen lan la kañu di tekki amuleen moroom léegi nag damay jëfandikoo baat bi ci ak kàddu déglu leen mbër maa ngi kañu ndax ndam li mu amati samay jarbaat baamtu leen kàddu gi mbër maa ngi kañu ndax ndam li mu amati waaw leen góor waaw leen kumba léegi damay jëfandikoo baat bi ci geneen kàddu déglu leen jàmbaar jaa ngay kañu di fëgg dënam sunu xel yi ñu déglu baamtu leen kàddu gi amu leen moroom mari léegi dama lay jox ab laaj seen xel yi ñu déglu ñoom dañu woo a teewlu bu baax te xalaat ci tontu li aywa ndax kuy kañu dana wax lu rafetul ci boppam déedéet nijaay kuy kañu lu baax rekk lay wax ci boppam waaw kumbaawaay mari badu léegi yow yaay tontu ci sama laaj seen xarit yi ñu déglu ñoom it dañu war a teewlu bu baax te xalaat ci tontu li ndax ku bëggul ñu xamal ko dara dina kañu déedéet nijaay kuy kañu kay dafa bëgguñu xam ko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 jéemal defar kàddu gu am baatu kañu seen xarit yi déglu ñoom war nañu jéem man mënuma kañu ndax dama ragal nit te bari kersa amuleen moroom samay jarbaat suñuy xarit yi ñu déglu ban baat lañu jàng tey kañu waaw leen kumba waaw leen góor samay jarbaat suñuy xarit yi déglu lan la kañu di tekki nijaay kañu mooy tagg sa bopp amuleen moroom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 woy cosaan bu jëkkoon lépp lu masaan a xew te dugal ak coppite lu mu néew néew ci dundu dëkk bi jigéen ñi li gën a bari ak góor ñi léeg-léeg daanañu fent ay woy ngir xumbale ko bés bi wala guddi gi ak it di ko ko fàttalikoo moo waraloon woy ci njong ci njam ci làmb ci sabar ci céet ba ci liggéey ca tool ya su boroom kër masaana santaane liggéey ngir ñu dimbali ko ca toolam bu mënul àggale moom dong balaa yàqu mag ñépp dañu daan daje ca tool ba yend ko liggéeyal ba tool ba egg mbaa jant so ñu soog a wàcc su ko defee boroom tool bi jox leen añ bu am ak guro looloo waraloon jàmbaar yi ku ne bëgg woon ñi ci des ni moom coono tiitalu ko du ko tee woy du ko tee kaf ak di ree woy njàmbaar yooyu ca tool ya moom lañu doon wax kañu ngoomaar nag lañu ba telu amoon solo la dafa daan textexaan ngor nu gël deret yëngalu njàmbaar ca la aadi daan woye di waat na ñoom duñu daw bu ñu jàkkaarloo ak ŋaamaan ba njong jooy defee satu ko muy dara ngir ñiy jong léegi lu néew lañuy egg ci fukki at bu jëkk aadi ay waxambaane yu dëgër lañu daan doon ndax ku masaan a génn ab lël mën a dem xare wala nga daldi takk jabar mbaar mi daara dëgg la daan doon du ñuy jànge doon góor nooy nekk ak say moroom te doo ñaaw benn yoon doo génn ci lag yi ci lañu daan dindee kumpa njulli bi ci lu wax di tekki lu yenn gàncax yi di jariñ wan waxtu lees leen di dagg loo leen di jënde nu ñu leen di jëfandikoo jàngal leen am fit am ak dal ak ràññee ba mën a xam ñi nga séqal àddina képp ku ne loo warloog moom loolu lépp a ngi daan tàmbali ci ngoomaar li sa bokk yépp teew sag maas say nawle say xarit say soppe say am di jàmm waaye it say bañ ak say noon ñépp bokk solu ba jekk ndënd yi di la jiin ñi safoo di la jàjj ñi bañ di la yéene gàcc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 ci yan xew-xew lañ daan faral di fent ay woy ñu ngi daan faral di fent ay woyi cosaan ci xew-xew yu mel ni njong njam làmb sabar céet ak liggéey ca tool ya waaw góor yow it badu xale yi yéen daal jàmbaar ngeen waaw kumba yow it mari léegi nag tontul ci laaj bii su borom kër mënul woon a àggale toolam moom dong lan la mag ñi daan def seen xarit yi ñu déglu ñoom it war nañu jéem a tontu ci laaj bi. mag ñi dañu daan daje ca tool ba yendu koo liggéeyal ba tool ba egg mbaa jant so ñu soog a wàcc. waaw kumba mari xale yi yéen daal amu leen moroom. waaw góor badu léegi nag tontul ci laaj bi ci topp. lan la borom tool bi daan joxe seen xarit yi ñu déglu ñoom war nañu jéem a tontu ci laaj bi. borom tool bi añ bu am maanaa ak goro la leen daan jox. waaw góor badu xale yi yéen daal jàmbaar ngeen. samay jalbaat yéen sunu xarit yi ñu déglu yegsi nañu ci njeexteel liggéey bi ñu waroon ci nettali bi wane ngeen ci njàmbaar gu réeréy tàccu leen seen bopp waay. yéen suñu xar yi ñu déglu laataa yu tàggatoo ak yéen bëggoon nañu ngeen tànn ab diir ginnaaw émission bi ngir jàng li nekk ci xët ñaar fukk ak juróom maanaam 25 ci téere këru yi ci kanamu béy wi ak gaynde gi ak ci fukk ak juróom maanaam 16 ci téere këru seppee ci kanamu béy wi ndax jàpp ngeen li ma wax bu baax xale yi waaw nijaay xët ñaar fukk ak juróom ci téere këru sëy yi ci kanamu béy wi ak gaynde gi ak ci xët fukk ak juróom benn maanaam seize ci téere këru seppe ci kanamu béy wi waajur yi bu émission bi jeexee man ngeen dem ak seen doom pom mi ñu duppe wër ay araf ci kër gi ngir yokk xam-xamam ci araf yi lëkkalewaale turi araf yi ak seen mbindin ngir def yëngute bi ni mu ware mën ngeen jëfandikoo mbir yi nekk ci kër gi yépp te am ay mbind niki ay téere ay këyit wala ay xottu karton yu defoon lu jëfandikoo ba noppi ay arminaat wala leneen lu mën a doon lu am mbind ci wolof yoon yi ngeen di aw ngir def po mi tànn leen aw araf ci abajada wolof bi laal leen xale bi mu wër araf woowu ngeen tànn ci kër gi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 te nu ngi leen di xamal ni ànd bi ngeen àndoon ak nun ci liggéey bi sag la woon bu rëy ci nun te ànd na ak mbégte yenn waajur yi nu ngi njort itam ni di ngeen wéyal yëngute yi ñu leen baaxe ci émission yi ak seeni doom ci jamonoy bër di ngeen mën di dégluwaat émission yi ndax dina leen ko yónnee jaare ko ci war sab su ko defee ngeen mën di wéyal yëngute yi ak xale yi lecture tous mu ngi mébét jàllalewaat émission yépp ci weeru novembre wii ñu jëm ci wolof pulaar ak séeréer ànd ci ak rajo yi leen doon dégtal émission yi jamono yii samay jarbaat jot na nag léegi ñu tàggatoo ak sun xarit yi jaangeen jëf jaangeen jëf ba beneen yoon école bi wéet na ndax mbas mi elew yaag ca kër ya toog jaaxal seeni waajur